ñu xam ba xam ku jë ci wàllu politique am na ci réew mi am déet xamoon nañu ko fi nag ku xool na Senghor ndem si yàlla si yore woon réew mi ci diggam ak ñi fare woon ci ku kujje gi rawatina ku ci mel ni du Dia nga xam ne ba ko Léopold tëjee mu tëddi kaso ak i gëtam di xool ba mu ko tijjee daa gumba liñ ci mën a fàttaliku nag bari na donte liñ ci fekkee lu néew la waaye noppam ak borom ku jëg politique ci Sénégal bu ci yàlla suñu borom jàppul woon diine ji mënoon na fee jaare ñu bañ fàttali waaye doyoon na waar lool ci këru diine yi fàttali ñaare fàtte da koy gën mbaa fàtte fàttelu kujje ci wàllu politique fi ci Sénégal Abdoulaye Wade am ci taxawaay bu taarix dul mës a fàtte ñaar fukki at ak juróom benn ci xeex dugg kaso génn kaso taali pono taali oto génne ay ceeni welo ba dégg fi njombor waaye du woon moom rek am nañu mu ci àndaloon ñoom Machmoud Diop Cheikh Anta Diop Amath Dansokho Abdoulaye Bathily Landing Savané ak ñeneen ak ñeneen bu ñu doon fukk la ma ni ñaar ñoo ci dugal kaso ndax xeex wuute lool ak opposition ba ma xam ba Macky Sall falo nga xam ni bu ñu doon fukk la ñu ñaar ñoo ci dugg kaso te ñëpp waa PDS la ñu te la waraloon seenub xeex ñëpp xam nañ ko weesuwul Karim Wade ba waral bu laaj bi sampoo tey ba ñu bëgg xam ndax opposition am na fi am déet nga war a xam ni njaw des na fi xambin ñi waroon a taxaw opposé xool nañu ba waa APR ci seen bopp ci seen biir foofee la ku jég politique gi nekk jamono ji foofe la lépp yi jaxe ba ci coowal kéwal yi tey nga xam ni jëwriñ ñi ci tudd yépp di Abdou Karim Sall Aly Ngouille Ndiaye ak Mansour Faye mi ne day porter plainte ñoomu neen la di firi li wolof Ndiaye di wax naan ab àll la fay ñuul moo fa di ñakk tubaab naan ko la nature a horreur du vide opposition ci boppam moo fi amatul coowal kéwal yi rek donc waroon naa mën a tax ba ku jég politique gi takku def benn dànk ngir lépp mën a leer mala yi ñuy pàccoo alalu réew mi lañu wutewuñu dara ak xaalis ba ñu den fële ca trésor te kéwal yi sax mënees naa jàpp ne ay trésor lañu ndax li ñu tumurànke bi far dëgg la ku ne bu la neexee nga faral ku la neex waaye far gi war a jiitu mooy faral Sénégal bu la benn leader politique war gënal sa réew ñu war a bàyyi politique kat yi ñu jiite parti yi waaye ñoom askan wi nag ñu jiite leen ci xeex bi bañ leen cee xaar lu ko mooy ay dëpp ak i dippi ak i diil la ñuy dëkkee misaal yi ñu ci mën a joxe bari na xeetu protocole bu ne dégg nañu ko fi waaye ñu bañ a fàttali ba tey ak lu mën a xew opposant bi mëqate ne muut moo ma gënal kii mëqatee mbel mbel yi foo ko gis foog ni moo rey gaynde gi te réeréewul benn yoon ak ñàngal